mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi dox ci diggante Lat Dior ak Zëmb Parcelles Mbooloo Lat Dior école de lutte Balla Gaye mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi dox ci diggante Zëmb ak Lat Dior abi bi daa sifle ñu jàppante mbokk yi ñu leen di fàttali ci nga xamante ni mooy papay Bamba Thiam Baye Saliou Thiam dafa réer biñ ne tabaski bi des na benn fan la réer diggante Guédiawaye ak Thiaroye mbokk yi nañ leen ko bàyyi xel ku ko gis ku ne Bamba Thiam ci ñun lañu bokk jeune reporter la xale bu am jom nangoo liggéey papaam daa réer nañ ko bàyyi xel bu baax a baax Baye Saliou Thiam Zambak Lat Dior abida sufle ñu jàkkan ñu jàppante xeex amul Zambak Lat Dior moo ñu wan ginnaaw ngemboo ngemul xonq li tent bopp bi Lat Dior ñuul booy xool moo xaw a ëpp tuuti Zambak képp ci ku ci nekk am nga ñaari loxo ci ngemb Lat Dior dafa mel ni dafa bëgg songale wala lu mu bëgg def ràccaat na moom Lat Dior zëm Lat Dior zëm dóor na dóoraat Lat a ngi gën a dugg bu siggeeg moom nu muy def waaw waaw noonu la zëm génnewaat na loxo ba dugalaat ko. Zeum ak Lat Dior xale yaa ngay bëre Zeum da ko bëgg a teel Lat Dior bañ laay lay la laa <laughs> waay waay nee na dañ koo bëgg a ci làmb ji ndax làmb amul mbër xees nee na day bañ loolu moom Zeum Zeum ak Lat noonu eh zëm a ngay forcé zëm plaqué ko mu bañ bi jaar na ko zëm ndànk zëm ndànk xale bi xale la daa am doole dafa mën a bëre làmb kenn ko forcé zëm zëm defal ndànk zëm ak Lat Dior Lat Dior ngay dóor zëm ak Lat Dior Zam ak Lat Dior lu mu bëgg a def Zam dafa mel ni dafa bëgg a forcer Lat Dior Zeum laa bëgg jeexa jeexal combat waaye Zeum làmb dañ koy cons soo defee baaxul nga teg lewel xiim fuural xelli Lat jàpp Lat Dior jàpp na Lat Dior jàpp na rocc waat na benn loxo ba Zeum daanaan la journée Ouzin Production pëlëng may xool man waaye tëgguma sax nag tëgguma de Ouzin moo tëgg làmb ji déedéet Ouzin Production Zam ak Lat Dior Lat Dior dóor moom Lat Dior Zëm taxoy ah euh, Zëm Zëm daan na boppam Zëm daa forcé Lat Dior daa pompé pompé waat mu metti Zëm dak lancé mbot ma toñorul Lat Dior daan na ko Lat Dior daan na Zëm oh